ma ne. waaw mère Soda. Ah, ah, maa ngi ma ma ne. waaw. àll si la moom dama ko teg de côté. Ah, ndax kenn joxu ko ndomb ak mais li muy ñàkk kenn xamul nu mu toll. xam nga damaa duggee àll. waaw mais àll si la mention spéciale. man suukaru koor ak lu ma yónnee da koy teg ci otaam waa këram indil ma ko. xam nga yoru ndombay tànk yanu jox ndombay tànk laa wax. Mm-hmm. mais moom bu fekkoon ne day tay wala muy mer wala muy gedd gedd na bu yàgg. Mm-hmm. ndax moom day ñàkk alalam. Mm-hmm. mais sëñ Bass Tiib it maa koy félicité ndax nu ne def nañ ko tiib mais moom mention spéciale ak soxna maam say Mbàkke daa gagné Touba Belel jigéen la. Mhm. kooku buy joxe marché bu di jox marché nañ ko jox ñu mel noon waaw parce que nee nañ responsable moom kese moo gagné ga dëkk bureau ba nga watee dan la faa gagné. ah la jox ay. millions ñu di la rañal waaw. maire Sow da koo a wax foofu mel na ne ndaam ñoo fa dëkk ñun ñu lan lañ fa jox ay marché. maam xarim sëñ Moussa min doon joxi moyen. Ah. xam nga nit dangay am saw nit. Ah, pourtant waa kër maam xar mais ñoom ñoo renforcer kii ñoo renforcer taux bi. waaw damaa bëgg nga dégg su ma renforcer wul tous day wax moo waxal wax yi général Diène ba may rabe ah, rabe àllit moo leen mu ta jargoñ man. renforcer wul dara booy renforcer dangay am dara mais bureau ba mu watee ndaam dañ ko faa gañ. nit ñi danga leen di utiliser danoo mer ndax da leen a utiliser woon ca jamonoy Ablaye Wade. Ah. ba mu leen utiliser ca jamonoy Ablaye Wade am la bëgg kàjj leen ñooñu tey danoo ñëw roñ bay doyal fayu. nit da def ni di dimbale di demi ngénte di demi màggal di demi conférence na àll si di def maam say mbàkke di ko def man mii aw ma dara waaye damay dem. ma mais Soore am waaye li ma am laa ngi koy bokk nit ñi. Soore est-ce que jàppoo ne jàppal tànk président ah, moo xaw a jafe rek mais gisoo bi président ñu ngay Touba pourtant félicité ko président bi ñëwee Touba félicité na ko ne ko sa liggéey rafet na est-ce que jàppoo ne nga jàppal tànk président moo xaw jafe pour fexe mu gañ fi mais maam xarit jàppee wut du dem ca nit faale wun nit ñi nit ñi da nga leen di faale bala ngaa dugg ci politique di dem ngénte di demum dëj boo yoree dara di dimbal ay nit ordonnance yooyu waaye boo bàyyee ba nga xam ne nii yow da ngaa dugg ci politique ñu jox la marché rek nga dem ca nit ñi di ron di indi boo demee jël kenn nit comme ñaari nit naan di maa nga xëcc këriñ si ak yooyu. Hmm. loolu laa indi lii. Hmm. Touba dañoo bëgg Ablaye Wade képp koo xam ne yaa ngi fi kar Ablaye Wade mu ñëw Touba wala nga fi def ay manière nit ñi dañ lay sanctionné ngi waaw jërëjëf mu nekk maire Soda mu am lu ci doon yokk